Gaston Production présente. Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Attention, Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 ki doon na Double Less, Balla Gaye 2 ki ne woon man xaalisu làmb la ñu ma ngente ah mooy daje kan Gris Bordeaux ki doon la Tigre de Fass ki doon Mbaye Guèye ki doon Tafa Guèye ki doon Fass fa làmb soso dinañ ci tëgg ndënd ba ndënd xar. salaamaaleykum mbokki internet Gaston production tey nag ñu ngi leen nuyu ñu ñëwoon fii nag jël si Gris Bordeaux fii si Mbaaw fii nga xam ne mooy PNP fitness club mu doon saal boo xam ne mucc ayib la yéen mbokki mbëri gars yi ñam defar seen yaram mu ngeen fi ñëw ñu toog ak le gérant euh, muy Bachir ñu fas yéene waxtaan moom mu wax ñu sabab tax ñu tijji saal bi ak saal bi lan la fi am ñu xootal waxtaan bi comme sax yéen seen bopp ngeen mu découvrir ngeen ñëwal après dañu gis image yëpp production incha allah sëñ Bachir ñu ngi leen di fay waa production. donc euh, man maa ngi tudd El Bachir Baro man maay responsable complexe bi PNP Fitness Club voilà nekk fii ci Mbao daanaka ginnaaw Rufsac ci wetu cité Cyprès bi Cyprès bi lan moo waral ngeen tijji salle bi tijjee ko PNP Fitness. xam nga borom bërëb bi dafa doon koo xam ne ancien sportif la te daf daf ko daf ko jaral lu ne daanaka da doon ko da doon moom mu ngi dëkk kër euh, mbay Fall da doon ko jaral mu jóge fii dem ba bii dakaar di entraîner léegi ba mu xoolee coono bi gars yi di daj di dem ba biir Dakar pour am rek benn salle boo xam ne mu ngi répondre euh, critères yi gars yi di wër ci la ne pourquoi pas mu daal di investir ci ci fii ci zone mbaaw bi daanaka comme ça dina yóbbaale ñi nekk ci banlieue bi yëpp daanaka soo xoolee fii ñi ngi ko tabax ci mille cent mètres carrés euh, répartir ko ci ni anam boo xam ne ku fi ñëw di entraînement doo déranger kenn. donc fi ñu nekkoon nii sànq moom mooy salle musculation bi gis ngeen euh, matériel yi fi nekk ak euh, espace bi mu am euh, soo sooy soog a duggoo ñu ngi amee ci côté bu foofu salle massage am na salle conférence am dojo soo yegee premier niveau salle fitness moo fa nekk mooy daanaka fitness pour les débutants ak troisième âge lépp la ñu bàyyi xel parce que troisième age mën na ñëw wala débutant te doo mën a doo ànd ak doo mën a ànd ak groupe bi donc du coup dañ lay ber. am ay spécialistes yoo xam ne ñoo lay accompagner ak aussi des malades yoo xam suñu ñëwee bëgg ko leen euh, accompagner voilà rééducation ak yooyu donc euh, dinañ la accompagner fii nii dina am ay spécialistes man mii di wax ak yéen man médecin sport la donc je suis dans la médecine sportive en tant qu'auxiliaire voilà donc deuxième niveau bi fa la salle fitness bu mag bi nekk donc groupe bi ñëpp fa la ñuy nekk di di travailler. voilà euh, premier niveau aussi salle cardio mu ngi foofu noonu. jàkk waaw jàkk am na fi parce que euh, nit ñi du ñu bëggaan entraînement dañ doon xalaat suñ ñibbee coono bi ñu ciy jëlee ci entraînement bi ba pare nar julli duñ ko xalaatee des fois du ñu sawar a entraîner ou bien ñu ne suñuy xaar ba julli ba pare soog a dem entraînement des fois du ñuy guddee ñu daal di faf bàyyi loolu lépp ñu xool ko daal ñu ne tout en daal lañuy defal gars yi ku ci ñëw soo ñëwee. mën nga ñëw julli dem ci versaire yi changé wu soo ñëwee def sa séance soo paree su la neexee duggaat ci versaire yi sangu solowaat na nga solo woon julli su la fi beneen euh, waxtu fekkee nga daal di mën a ñibbi nekk ci jàmm ak salaam. comme tey dégg naa sànq wax waxi spécialiste kon yéen recruter ñoo xam ne ñu mucc si liggéey bi lañ. effectivement parce que fii euh, dañu xaw a exigeant euh, man comme ni ma la ko waxee rek en tant que auxiliaire de la médecine sportive bugguma nit di fi ñëw di fi gaañoo wala di fi jël loo xam ne moom mooy loolu. donc dañuy exigeant ci recrutement ni ñu koy defee donc da ngay ñëw ñu xool sa TV waxtaan ak yow ba pare testé la xool nan nga mënee fan nga mënee après su ko defee ñu daal di waxtaan xool ku ñu daal di valider rek. ñu daal di tamit temps yi bi métti na côté tarif yi lu mu fa demee. voilà euh, ñun nag ndimbal njaboot la ñuy def. daanaka tarif yi daanaka saal boo dem li nga fa fekk loolu lañ fi tegaat mënoon nañ ko jël yokk ko parce que gis ngeen fii ni mu mel mënoon nañ ko yol yokk prix yi mais bon dañ ne amul sens nit ñi dañu bëgg a te ñëpp bëgg a yëngu donc da koy def ci loo xam ne daanaka nit ñi daañu sawar a daal di ñëw donc les abonnements comme tout dans les salles comme dans tous les salles euh, c' vingt mille mensualité euh, quinze mille francs. am na ñu def waaw ben ñun ñun ñun comme ni ma la ko waxee rek ndimbal njaboot la ñuy def. xoolu ñu ci li ñu investir dañuy bëgg nit ñi ñëw tàggat seen yaram parce que euh, bi biñ ci am rek ak euh, liñ ciy ressentir daanaka ñun loolu euh, kii la quoi contentement la ci ci ñun. voilà exactement téléphone bi tey ku leen bugg a jot pour bëgg a ñëw daanaka fii numéro commercial bi mu nekk 77 340 12 12. 77 340 12 12 voilà. kon gars booru écran bi numéro dina ci daw incha e-, allah effectivement bu nga ñëw entraîner rek sa yaram mun nga ñëw fii. amul benn jour yëpp heure d'ouverture waaw on est ouvert du lundi au samedi daanaka lundi ba vendredi de 9h à vingt deux h donc les samedis de 9h à 20h. de 9h à 20 dimanche amul. donc dañuy préconiser aussi xam nga entraînement bu baax lekk bu baax la àndal ak repos donc foog dallu foog muy am. dallu foog ñu ngi lay jërëm baax. jërë ngeen jëf waa Gaston production. kon xam naa gars yi fi def descente. d'accord incha allah jërëjëf. <laughs> jërëjëf gars Gaston Productions présente. Gaston Productions, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Attention, Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 ki doon na Double Less, Balla Gaye 2 ki ne man xaalisu làmb la ñu ma ngente ah mooy daje Gris Bordeaux ki doon le Tigre de Fass ki doon Mbaye Guèye ki doon Tafa Guèye ki fa làmb soso mbokk